Sama zoor man een voetbal, darabal Gardien de bu, akka man een karbal. Helaas, je hoeft mom, def no peuvum Sayo man een akka garing ak kulebum Wana, wana voelen gor jam fit Wana, gaine link doe je donkey Assurance, défense, kara Collectivité dans l'ensemble, gaine fait la part Die marke die gagne, die doegel, die gagne et certes eh, général eh, Bandilor John Lopi et eh, Kim Fandalu match xaritoo ci diggante ki nga xam moom international sénégalais di John Lopi amal ko fi ak ay xaritam ici Bambilor sa ballon pied récupéré par Lopi Lopi qui donne à son coéquipier lo milieu mu jox ko kané ka so koñ ba ka so wala muy téye bay As bay As loolu rafet na jox na ko Lopi Lopi est ce qu'il va faire delloo na ko wala la ñak na bal bi récupéré par qui euh, par les jours de khandalu teud na arbitre ci na ko fara coup franc faveur de xandaalu Mam As euh, Alors rapidement, je vais faire euh, qui donne à Idi, euh, Idi euh, qui contrôle, Idi toujours, qui donne à, qui sont coéquipés, je lui contrôle, on joué, bien joué, bien joué, voilà, Amdiaye, je Diop, attention, il n'y a pas d'Orzo. Ah là là, ma amical, le Dom Le portier de l'équipe de John Lopi, dans la zone défenseur, il contrôle, contrôler, qu'est-ce qu'il va faire, lancer au milieu, essayer de trouver qui, Lopi l'a vu, il l'a trouvé, oh là là là là.

l'équipe de l'OPI qui garde toujours la balle, qui fait des amia et du rôle du, du euh, mauvaise passe récupérée. il euh, qui contrôle ce qu'il va faire. il dit la balle ba jox nga xam portier mu ko bien qu'est-ce qu'il va faire Il ko au milieu. Dans au pied de récupérer par l'équipe de l'OPI oh là là Yagoufa fa fa mais toujours l'OPI l'équipe de l'OPI attention frappe oh là là là là là là là là là ballon Bouki ballon bàyyi à euh, mam euh, mam Lito mam Mansa ballon dégagé contrôle ballon pour l'équipe perdure oh là là bien joué a récupéré am Ndiaye joxal Diop il n'y a pas de faute, euh, dit l'arbitre. Euh, bien joué, qui, euh, qui donne à son coéquipier. Oh là là, mauvaise passe récupérée. Les joueurs de, l'équipe de Lopi, toujours au milieu. Lopi, il y a faute, il oh, y a faute, bien sûr. Bien arbitré. Rapidement joué du côté de Khandalou. Face au gardien, Dour s'entraîne. Oh là là là là, qu'est-ce qu'il va faire frappe I gotta.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 qu'est-ce qu'il va faire là ras de terre il l'a vu il l'a trouvé oh là là l'autre fait qu'est-ce qu'il va faire mu dem Lopi, l'opi au milieu gardien oh là là là là là là oh quel raté quel raté attention il y a faute directement dans les bras du portier pas de faute oh là là quelle occasion manquée de l'équipe de John Lopi ballon même As qui dégage au milieu pour essayer de trouver qui a Baye Ndione Baye Ndione il l'a vie euh, bu mu jox ko Mbaye Fall Mbaye Fall mu delo ko oh la la c'est pas fini farap di dugal di gagne lay lay santane victoire lay jeexee zam gagne Sénégal xam nga ñëpp. di mom mu nga mu nga topp loppi marquage à la culotte la ko def xoola idi way ki nga top rek nak demal demal ade ah, day orso ah kon taxaw taxaw la voilà nee na day orzo moo tax mu taxaw voilà mi ngi noonu El Hadj Diaw qu'est-ce qu'il fait El Hadj Diaw El Hadj Diaw le défenseur euh, Abdou Gueye ballon toujours Dugay Dugay waaw Dugay waaw waaw doole bal bi génn na. kaña kaña kaña kaña kese ba ñu wax fii suñu gaal dafa rëbbi ndam lay indi oowee buur yàlla ñu ngi lay ñaan yow borom kumpu bi ñëw Sénégal. am solo dafa am solo mu réew des gannaaw jaaraama Sénégal gàcce ngalaama yi di ndax fa desi bay amul fitu di ji lambi Voilà, Banjon, Banjon, qui donne la frappe. Oh là là, Zoram.

contrôle manqué de Baye Ndione oh là là bien joué xëcc bu tengee bu daggul day dëkk faat wana jom dem jël ko bi dëkk Sénégalé sunu gaynde kuy du damuk di lakkatu si gaynde danga rep danga rep ñu ne teg la tànk teg la tànk gaynde poussé foncé gisoo suñu football nu mu naay douzième gaynde poussé leen ci ndam ale gaynde ñaay du Moussa dellu ginnaaw oye dañoo bëgg dañoo bëgg ndam bi mu yël mayo fexe indi ndam bi Sénégal day dem football ñàkk def différence bu laajte day dem gaynde njaay del bañ day metti rek mais bis na ñëw ñu fi ndam may ñu ndam wane wane wane wane Euh, qui contrôle Hassan toujours jàll na ñaari jour yi mo ngay dem jox na ko ko Mbaye Fall bay Fall do ça peut être dangereux ça peut être dangereux s'ils savent oh là là ballon perdu récupéré mam Assa du côté de l'autre équipe Khandalou face au gardien Baye Ndione voilà lise Baye le portier euh, qui relance, qui trouve euh, le Guinéen, qui donne. la la la ne vous laissez pas faire on est tous vous donc vous n'êtes pas seul Khadim Nicole Force

Oh là là Pour l'instant, c'est deux buts en faveur de Khandalo et l'équipe de Kim Lopi. Attention, ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Attention, récupérer. Barna, Barna, Barna. Athlète de là Oh là là Assurance, défense, cara, collectivité dans l'ensemble, gain de fait là. Ah, quel raté Raté de l'année Raté de l'année Je vous l'avais dit, ça peut être fatal, mais malheureusement, l'attaquant Gatan a raté la balle face au gardien. Ballon. Le Colonel, ça peut être fatal, Bayas il donne à son coéquipier la mauvaise passe attention entre les deux joueurs l'arbitre qui les joue. il a rien toujours bien joué récupéré ballon Lopi qui contrôle qui essaie de trouver une solution ballon toujours pour son coéquipier Baye qu'est-ce qu'il va faire euh, Bayarsa, mauvaise passe récupérée. Oh là là, ballon dégazé Directement vers qui euh, Et le jeune euh, l'équipe de l'OPI. C'est la mi-temps ici. C'est organisé par l'international sénégalais John Lopi entre ses amis Non, c'est mal ciblé. neex na mais mais occasion yi ngeen am di raté rek par lan lan moo waral loolu da ngeen koy dugal bayas bayas bayas lan la def daa complot ak équipe B wala ndax oka maa ngi sànq mu am benn occasion moo moo moo elaat yow rek mu jël bal bi dóor ko ne lay wax sa loolu dala nee nañ yow da ngaa complot fa rek yow looy wax si loolu lu tax nga am occasion raté occasion bi nga am raté di nga dugal ah mais mais daw, daw. équipe bu xandaalu moo gagné woon de ren ñu nar leen a dóoraat yow yow loolu loolu loo si wax. affaire bu xandaalu gagné si lay dàqee quoi ñun bu ñu gagné dara. lu tax lu tax lu tax. lu tax daa lu ñu war a séddoo si biir. Ah, loo a si wax yow. yow loo siy wax ñu defoon dara leen comme gars match ñaata nga xalaat ne moom ngeen di gagné kon day dem 5 pour deuxième mi-temps ñi dañuy bàyyi entre ah? bi nag pour l'instant base moo yàq si base naa moom mu am benn occasion euh, dóor fee bal bi arbitre bi ñoom la faral arbitre bi ñoom la faral mais maam As mu ngi ne dañu ne dañ dañ leen di dóor 5 yow looy wax si 5 yooyu doole yéenay gagné ñaata ñaata plus Kan? Mame Ass nee na 5 lañ leen di dóor de. ñu ñoo la dóor 5. yéenay dóor 5. voilà yow loo si wax yow Idi. 2-0 pour l'instant. bu may bëgg rek. 2 2 bul bu bu jëloo wi jàmbur. kii laa sonn te dara xewagul. dama kan moo la dóor kan moo la dóor. ah mais mais mais est-ce que dóor na la. mais mais maa ngi gis yow nga topp ko rek marquage à la kilo lu tax lu tax. mais mais est-ce que est-ce que day orzo est-ce que day orzo. mais yow lépp looy wax si loolu nee yow da ngay orzo rek. maa ngi maa ngi aligné ak moom.

Xandaalu pour l'instant deux buts en faveur de Xandaalu. Corée Japon dafa yag waaye fatou ñuko ko dee dafa jóg ku nekk ci yeen fexe jox lu mu am li ci des ni teg ci loxo ku mom mu ñu moom. Battez-vous comme des lions ne vous laissez pas faire. Ouais loupé. Relance gémmiñ ci flanc yi joxol gaana gaana. loupé. duñ ko bàyyeeg ñoom. jamais jamais duñ ko bàyyeeg. défendu du côté de Kim Lopir. Il y a faute l'arbitre. L'arbitre qui l'a joué. L'arbitre qui l'a joué. Qui dit qu'il a deux pieds, dit-il. Ballon toujours. Oh là là. Gardien depuis Akamana carpal. Et là, mon ah, Intelligemment. Toi, Zetafan. Toi, Voilà, intelligemment. Il a bien joué quand même. Ah. Voilà, toujours. Ballon au milieu pour Ndang, Ndong qui essaie de trouver euh, son coéquipier, mais ballon perdu. douzième gaynde Sénégal xam nga ñëpp a jóg leen waar xam ngeen ko néga moo di kóob nañu dem ba jeex waratuñu maye dara Sadio Mané jaaw bale dem ba ci kara woni woni woni woni woni woni ne danga pare nga pare dem jëli ko bi wàcc góore góore jéem a sigi suñu nation nation bañoon bañoon fa toogal de Le triplé de Bagnona L'international Chris Oufoua qui marque son troisième but. Gagne, gagne, gagne, gagne, qu'est-ce que nous on oh, Sénégal solo solo Sénégal pour le quatrième but oh là là mbër mi dugg sàpp ndëndam fu mu gis yam ci ay mbokkam ku nekk di ko way di ko jiil yaa ñu ko tamee la la la la merveille eh mon fils dinaa la jëndal fonde fonde fonde c'est lui l'initiateur du match de gala entre ses amis venus de Dakar et celle de Bambilor. Et pour l'instant, c'est 4 buts à 1 en faveur de l'équipe de Team Kandalu de Bambilor. Les 4 buts sont marqués par eh, l'international Bambilorois, le joueur de BFC, Banyon. tànk gaynde poussé foncé gisoo suñu football nu mu naay see deuxième gaynde poussé leen ci ndam ale gaynde njaay du musa dellu ginnaaw oye dañoo bëgg dañoo bëgg ndam bi mu yel mayo fexe indi ndam bi Sénégal day dem football ñàkk def différence mu laajte day dem gaynde njaay del bañ day metti rek mais bis na ñëw nga ñu fi ndam may ñu ndam wane wane wane wane wane wane toujours Oh oh oh. Quel am Diop euh. ballon toujours c'est pas fini l'arbitre euh, laisse l'avantage bien joué Bagnon, qui donne à l'aise mu coco. ko euh, qui contrôle oh là là c'est pas fini La led. à a roulé oh.

is NBA. Freedom Mise. Freedom Mise. Bul may dara bal bi na ko përëng. ku lay jaay mën a duut na sama jour mën football dërëbal gardien de bu ak mana karbal et la suuf moom def na peufam Sadio Mané ak a xarañ ak këlëbam wala wane fu la góor jom fit wala leng lañ duñu donkey. assurance, défense, kara collectivité dans l'ensemble gagne fait la part di marqué di gagné di dugal di gagné Lain lañ sentane victoire lay jeexé douzième gagne Sénégal xam nga ñëpp a jóg leen war xam ngeen ko nigga modi ko nañu dem ba jeex waratuñu maye dara Sadio Mané jaaw bala dem ba voilà et c'est fini et c'est fini semaine bi da manqué ben fan asalaamaaleykum donc nous sommes ici ci Bambilor plus particulièrement si complexe bi nekk fii nii donc aujourd'hui nous dañ fi pour def un match de gala entre notre international John Lopy ak euh, ses amis yi nga xamante ne nii ñoom la doon passer son enfance ici à Bambilor donc di rafetlu aussi tamit euh, journée bii nii nga xam ne la passé ak ay xaritam je crois que ce n'est pas la première fois mu koy def pour ñi ko parce que dañuy def ben yendu ci sen kër le soir mu organiser match de gala bi avec ses amis pour juste en fait fàttaliku touche de balle yi nga xamné fi la ko fi la ko don defee manam niñ koy mëna les BAB du football yi nga xamné ci Bayal bi la won plus particulièrement fofu lañ ko daan defee donc aussi tamit ñun li ñu xam ci jonne lenn la moy sa simplicité parce que nit ku nekk li nga xam ci mom ngay wax il est simple donc fu mu romb ay grand bu doon dawal dina taxaw saafonteeg ñom ak ay xaritam aussi tamit li nga xam ne moo ngi koy am à travers le foot moo ngi koy bokk ak ñoom aussi tamit à sa famille di ko jàllale benn message boo xam ne tamit c'est la communauté qui lui demande ça que mu gën a épauler ses amis mu gën a épauler le football de cet endroit parce que moom rek c'est un international te loolu bu ci xaree tànkam rek dina xaw a jàppale le football de cette localité en tout cas cette zone lui demande vivement et lui lui lui souhaite aussi tamit que ni moom carrière bi nga xam ne moom lay embrasser mu gën ay de l'avant mu gëna ci gëna a am ay succès pourquoi pas le ballon d'or parce que lool la footballeur bu nek di rêver aussi tamit des trophées individuels tantôt collectifs donc ñun ñong koy ñaanal aussi tamit ci lancé bi nga xamné mom la jël bu mu téggi tankam parce que nit ku nek say nitu demb nga am bu dara neex ba nga fàtte say nit demba démb ñoo ngi koy remercier vivement ci disponibilité bi ak ci simplicité bi mu am and ak ay xaritam donc ñun content nañ je parle en tant que ancien aussi tamit bi nga xamné ne daan nañ footballandoo daan nañu déglu di ñaaxaat aussi tamit xaritam yi fi nekk que rien n'est rien n'est impossible dans la vie il faut toujours y croire mom aussi tamit ñu koy ñaaxaat mu gëna aller de l'avant parce que mom bu jëmee ci kanam. footballu zone bi dina jëm ci kanam footballu Sénégal jëm ci kanam di ko ñaan mu gën a am ay présélection ay ay sélection équipe nationale gën a mouiller le maillot gën a amaat yeneen club yu mag yi gën ko toppaat ñoo ngi ko koy ñaanal loolu eh, di ko remercier aussi tamit vivement di remercier xaritam yi nga xam ni ñëw nañ fi jàppale ko si bés bi yàlla na ko yàlla di gën a do dooleel bés yi nii muy gën di dem di gën di dem bañ koy jouer si suñu stade municipal bu jërëjëf John jaajëf. waaw tout d'abord damay nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu sama gars yi ku ci nekk euh, ci turam di content aussi ci ci teewaay bi di content ci teewaay bi match bu bu la bëggoon na gagner trop sax pour euh, après ma mun leen mais ñoom ñoma gagner gagné di len wax ni tout c'est toujours un plaisir ma ma ñëwaat fii parmi ñoom parce que fi la commencé lepp ak ñoom fi fi la passé presque la moitié de de mon enfance avec avec euh, avec avec gars yi nekk fii yëpp te ñëpp ngi fi ñëwaat. teewlu wuy si ma di rafetlu loolu di leen aussi tamit ñi nga xamante ne am nañ ay rêve ñu nekk loo xamante ni nañ ko gëm en plus ñu ñu ñu continuer liggéey bu baax ndax football sport la boo xamante ne nii du lu yomb lu métti la man xam naa ci dara te fekk ci kanam ñenn ñi ci ñun ñi ñëpp dinañ ci xam dara bu soobee ndax gëm naa ko am na ay talent yu fi nekk yoo xamante ne nii. ils sont appelés à demain ñu nekk des des joueurs professionnels parce que Lola laa leen souhaité ñoom ñëpp mais lépp dafa am lu mu àndal mooy liggéey ak euh, ak gëm-gëm beneen affaire bi ci ci ci walum dekk bi taxaway beeg ak euh, sama gaay man euh, lepp li nga xamanteni ni ma maa ngi koy mbébét ci ci ci gaay yi nekk fii ñi nga xam ne la fawon foogoon lool ak ñëpp ñi nga xamanteni ne ñoo fi nekk ay jeunes di commencer bokk ci football ak ci Bambilor bi yépp

xam naa ni ñeneen tamit ñoo fi nekkaat te dañ ci jugewaat bu bu bu bu soobee yàlla di remercier encore ñëpp di rafetlu ci teewa teewaay ñëpp fii nii ci ci ci ci terrain bi di leen wax merci booku